bisimilah ausubillah min seytaan rajim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokki auditeur auditrice bu Baol Média ñoo ngi leen di nuyu fi leen daan nuyoo ci rajo bu mag bi nekk ci Mbàkke diggante tabla caabi ak marché Marama ci xàll wi jëm Tuuba ak Mbàkke ñoo ngi leen di nuyu auditeur auditrice fiñ leen daan nuyoo waxtu wi tembe di nuyu góor jigéen mag ak ndaw ki ni bàyyi xel ki ni safoo ki ni teewlu ki ni déglu di nuyu njëkk ci nuyu Serigne montaxa moom sëriñ Mouhamadul Basir xalifa général des Mourides ñoo ngi koy ñaanal yàlla sa borom guddalu fanam te wéral li cëram ba àggale ay mébétam ci yoonu lislaam ak yoonu maam borom Tuubaa Xaadimu Rasuul gi yàlla kàttanal ko taw féexal ko mu def ko nam ko soobee nam ko bëgg ànd koog dong ak taalib yi ak ñun noonu nga zaalika koy ñaanale Serigne Modou Amdi Mbend Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiin noo ngi koy ñaanal yàlla sama borom sàmm ko te aar ko làq ko fa yàq yëgut <coughs> guddalu fan wérali ciiram ba àggale ay mébétam ci yoonu maam Cheikh ànd koog njaboot gi yëpp muy doom yi waajir set ak taalibe di ko ñaanal bépp kilifa ak diine gu ñekk ci réew mi yëpp sama borom guddal seeni fan ak ñun dong yi ak taalib di nuyu ahlu transport permis carte grise di njëkkee ci nuyoo bi ak ziar bi <coughs> président régional sëriñ Sall bu dee ci administration président régional di Serigne sal ñoo koy nuyu di ko ziar di ko jox wàccuwaayam <coughs> di ci toftal. Euh, le président départemental di Mamour Jëmb Diop ñoo ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam nga xam ne barki démb rek euh, doon na indi inauguré gaarasam bi nga xam ne moom lañ tuxu yaakaar naa émission bi tey dana ko wane ndax am na représentant bu ko fi représenté am na lum ca ŋàbb ca gaaras boobe kon dana laaj ak tontu incha allah dana dox suñu diggante muy président Gab. ku ko déggul it wala ku ko xamul dégg nga ko ku yëngu ci transport ko ne doo su ko laajte moom Alaaji Gàpp di nuyu président national di sunu baay Idika nekk fii ci gaarasu héliport bi nga xam ne moom la jiite di ko ñaanal yàlla saafara ko ak mboolem way taw di di ko ñaanal it topp ci moom Baye Ndoye ak Cheikh Mbodj di nuyu Samba Sall sëñ Fallou Galas Diallo di nuyu Moustapha Diop di nuyu sama xarit Pape Seck de la route Pape euh, Ndong di fédération yu nekk ci dëkk bi sartonte wàllum taxi di nuyu Matar jaw président fédération ànd taxaw suñu taxi taxi yi su ma leen dee nuyu di leen ziar seeni kilifa ñi leen fédéré damaa xam ne màggal Sëriñ Tuubaa gaa ngi ñëw te ku wàll dëkk te du mburu lañ koy wax ci wolof su ma juumul mooy màggal gi bu ñëwee gan ñi suñ tuwaay bu ñu ñëw taximaan yi lañ si fekk si te ñoo leen war di jàllale ci biir dëkk di leen yóbbu ba ñu yegg fan jëm moo tax dama war a ñëw ak ci ñoom ñu soññante ndax émission édition spéciale màggalu Touba Côte d'Arôut jotaayu chauffeur la ñu koy jaglelee màggal gi ci ñaaxante ak dolliwante ndax li yegg si yegg si na di màggal gi nga xam ne ñëpp ko bokk destination bi fan la Touba rek la ñëpp fabu jëm biir réew mi ak bitim réew oto bu ndaw ak bu ndawut bu baax ak bu bon yëpp Touba lañ jëm te ñi koy dawal mooy ñan chauffeur ki am xel tey dégg te mën a gis te pot làggut moo ko war a dawal indi ko fii ci dëkk bi fi ñëpp jëm kon suñu toogee ci émission bi war nañoo mën a saafonte ñaaxante dolli wante te toog na ak boroom xam-xam doon kàngam ci transport mu di ci yëngu am lim ci xam bokk ci ay garage te yàgg cee yëngu te eh, am na secrétaire général u garage yu ñu waroon a dalal xam naa mën nañoo def ci biir émission bi kon Alaaji Gab ñëw jox la nga nuyoo présenté wu ñu démarrer émission bi incha allahu rabbi asalaamaaleykum wa ginnaaw bu ñu sant yàlla bu baax muslu ci seytaane ñu ngi santaat Serigne Touba Cheikhul Khadim bu baax a baax a baax a baax man nag ndongali gab lañ may wax may élément sëñ Fallou di taalibe Cheikh Abdou Karim Mbacke moom sëñ Fallou ma yaakaar ko nag tëggam ko te doyloo ko maa ngi nuyu sëriñ Mountakha tey nuyu seexu naa sëy bu baax a baax a baax waaye may ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi te wér lool. waaye noonu laa koy ñaanale sëriñ am di Muudu Mbenda Fall yàlla yàggal ko jamono te wéral ay jërëm waaye nag noonu laay nuyoo sëriñ Daam Soda Fall bu baax a baax di nuyu sëriñ Fàllu Fall rakam di ñaan ñu yàgg fi te wér te seen taxawaay ci dëkk bi yàgg waaye noonu laay nuyoo nag waa kër Cheikh Mamadou Muxtaar Diop Gap yëpp di nuyu seex ji di Diop Gap mi ci bopp bi di nuyu Cheikh Mamadou bu baax te di ko ziar waaye may ziare sama waa garage bi ma jógee muy guy sew alom ga mais may nuyu nag kilifa gi nga xam ne mooy yilif département bi ci transport di sama kilifa muy président Mamour Diop jëmb xule tey rafetlu taxawaayam bu baax a baax tey ñaan yàlla wéral ay cëram te yàlla yàggal ko jamono te di nuyu nag président Samba Sall waaye may nuyu président Pape Ngom bi nga xam ne moo yore garage su waaye may nuyu rek Abdou Lahat mi nga xam ne moo yore taxi waaye noonu laay nuyoo nag kilifa dëkk bi muy monsieur Gallo Ba maa ngi koy nuyu bu baax te koy ziar le maire de Mbacké waaye noonu lay nuyoo le préfet Khadimane maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax te di ko ziar di rafetlu liggéey bi vraiment te di ko jaajëfal bu baax di ñaan yàlla may ko màggal gu mu réussir waaye nag noonu lay nuyoo vraiment Mouhamed Seck secrétaire maire di nuyu Mamoun njaay mi nga xam ne moo nekk ci cabinet du maire bu baax a baax a baax a baax. waaye su ma demee Touba nag damay nuyu le sous-préfet de Ndaam bu baax te di ko ziar waaye may nuyu le maire Abdou Lahad Ka te di ko ziar di ko jaajëfal bu baax a baax a baax waaye nag may nuyu sama waa garage sama secrétaire Babacar Sakho Serigne Fallou jax maa ngi koy ziar te koy jaajëfal waaye may nuyu sama soxna nag foofu ca Touba alom nga ak sama njaboot di soxna Khady Diop ak njabootam te di leen ziar bu baax a baax a baax may nuyu nag ñi ma bokkal transportu commune Touba yëpp. maa ngi leen di nuyu di nuyu waa inter urbain waaye noonu lay nuyu waa urbain bu Touba waaye di nuyu rek waa serete yi maa ngi leen di nuyu di nuyu mëndoo yu baax te koy jaar di nuyu ñëpp président jakartamaan bi nekk Mbacke Pap Thiam Baye malik bi ne ci sereet yi Ndoy Fall nuyu nañ la jaar la maa ngi nuyu ñëpp Mour te leen jaar di ñaan yàlla nag may ñu émission bi jàmm nag fi mu ne moom wax ji xam naa day jëm ci transport bi ak màggal gi rek mhm. kon bisimilah maa ngi teewlu ba ci kanam jërëjëf Alaaji Gab di am kontaan ak mbégte bu baax di dellu si ñi nga nuyu ñëpp nuyu nañ leen bawuñu kenn ndax suñ ci toppee di limaat day yàggal te day am retard di nuyu sunu vice président ki topp ci man doon chef du garage Mor Niang célibataire bu mag bi nekk ci banque islamique. mais dafa mel ni sama invité bi tey dafa sawur wala dafa taw loolu qu'est-ce a lu xew wala question yi ma ko bëgg posé moom la bëgg a daw lu xew lan la lan moo xew. yow kay ñu ngi ci émission bi maa ngi toog damaa sawarut wala loolu après xëy na danga maa danga est-ce que est-ce que yenuma dara pour bu ma ñëwee ci émission bi xaw a nagam ak yooyu pour mu mën a interpeller ay laajam xam nga Modou dafa garaaw quoi <laughs> Modou lay président maa ngi lay nuyu nag bu baax muy président banque islamique waaye nag du ñu fàtte suñu autorités yi nag moo Modou waruñu leen a fàtte. effectivement waaw muy police nationale mm. bu ñu tëddee guddi nelaw. dañ cee bokk waaye nag kilifa gendarmerie nag ñu koy nuyu muy le capitaine wadd gis nañ gendarmerie taxawaay bi mu teel a am ci màggal ak Touba depuis démb ak pas-pas bi mu am ñu ngi leen di nuyu di nuyu commandant Ndiaye bi nekk brigade bu spéciale bu gendarmerie bu Touba nag di nuyu le général Moussa Fall colonel bi Diop ñu ngi lay nuyu yow it di la ziar mi ngi Touba xam naa maa ngi koy ziar baax waaye may nuyu nag Cheikh Bass moom sëñ Abdou Khadir kenn du moom waaye Serigne Dan Mbacke sëñ moom sëñ Abdoulaye du ma ko fàtte waaye kilifa ak rajo bii moom. maa ngi koy nuyu bu baax dama ko mere nag ndax xam naa ni def na fi. am anniversaire te waxuma ko waaye nag moom sama waay la daal boo gisee ma ñëw nii sax wuy si xam nga ni sonn naa maa ngi ci coono ak xarxati màggal gi. Mhm. waaye il faut rek ma ñëw parce que rajo bi moom dama cee bokk quoi lépp kon lépp lu koy jëmee kanam rek dama cee war a bokk te muy bawol média di doomi bawol yor ko kon dañoo war a fexe mu jëm ca kanam may ñaan rek képp comme sa publicité ci màggal gi rek. soo ko fi indee dina jàll lool moom maa ngi koy ñaan képp. am na solo am na solo alaaj Gab rafetlu nañ ko ñu dugg ci question yi rek euh, di koy doori ci Serigne Gab en tant que màggal Touba kenn dootu ko laajte wala nga koy laam-laamee ku ne xam na màggaayam ak dayoom fu mu toll te ku wax màggal Touba waxub chauffeur ana nan la ci chauffeur si war a comporté woo avant tout d'abord ci kaw. tali bi balaa ñoo egsi ci kaw tali bi ana chauffeur nan la war a comporté woo bala ngaa yëpp ay client war a jëm seeg moom Touba. buddi ko dëkk ba nga jóge ñëw fii am na sëfaru nan la war a comporté woo waaw Modou mooy nuyuwaat permi di nuyuwaat waa Carta Gris bu baax a baax a baax a baax benn pas-pas ak benn yéene rek lañ war a am ñun ñëpp ci lu jëm ci màggal ak Touba pas-pas bi ak yéene gi mooy Serigne Touba Cheikhul Khadim dafa liggéeyal boromam ba yàlla faye ko mbooloo mi mu yor tey hmm. bis bi at ba at lay kon buy am jàpp naa ni ñun murit yi nga xam ne dañoo dëkk Touba moom te sëriñ Touba may ñu lu mayut kenn defal ñu luñ lu mu defalut kenn moom. Mhm. dañ koy teel a secteur bi ñu bokk nag ci la ñuy mën a waxee muy interurbain ak irbain jàpp naa ni savour si moom waaj nañ ko mooy vérifier nañ seen i oto bu baax vérifier nañ pièces yi vérifier nañ excentre yi vérifier nañ ex euh, triangle rouge yi li nga xam ne moo ciy des nag mooy ñoom ñu ñaan yàlla ak wér ndax lu doomu aadama di def rek ak wér da ciy bokk may ñaan képp ku jëm si Touba rek. warma yi nga xam ne sëriñ bi da ko santaane ci dëkk bi maa ngi lay ñaan bépp sëfoor nga fexe sàmmonte ak moom te wàccoo ak moom ngir noppal ñun ñi nga xam ne da ñu fi fekk ñu di responsable tey rafetal suñu image tey noppal tamit sa bopp di sa jëmm mooy dëkk bii di Touba moom borom soññewaat na mooy bañ na fi lu jëm ci yëngu-yëngu yi politique bañ na fi lu jëm ci tuxam cigarette bañ na fi lu jëm ci sol am kap bañ na fi ci jigéen joo xam ne sak col day sentre saw yaram bañ na fi rek li nga xam ne moom la Seydouna Mohamed di gañ bañ màkka kon mi ngi koy bañ ci Touba. ak yokk musique sa biir waaw yokk musique sa biir oto teg sa Wally Seck tamit kooku sëriñ bi da koy bañ ci dëkk bi. ndax tamit waaw may ñaan rek. bu fekkee secteur yëpp la rek boo demee ci safoor bi boo demee ci particulier bi li ci ëpp man dama koy jiiñ rek ñëpp a yem bu ñu nee safoor rek safooru particulier bi kii dawalal police ak yi lañ aaye ko gendarmerie kon xam nga ne bàyyiwuñu benn siwil koor bu nekk waaw kon nag may ñaan yàlla waaye kilifa sapeur pompier gi nag maa ngi koy nuyu baax yàgg na ci dëkk bi di jàmbaar ndeysaan xam naa ni booba léegi nelawut fu ne mi ngi lu ne mi ngi koy daj kon may ñaan rek yàlla may ko réussite parce que am na ci yéene service d'hygiène bépp secteur daal bu ne ci dëkk bi yore koor moom xam naa ne yaa ngi ci vraiment suñ mbokk yi médecins yi médecin jànnatu bi maa ngi koy jaar bu baax koy jaajëfal ndeysaan di nuyu soxna soosu nekk garas bu bees waaye nag daal Modou chauffeur si moom nañ am farlu ak wàccuwaay ci màggal gi nañu vigilant ci dawal bi nañu bàyyi xel tamit ci yar ak i teggin nañu fexe amee comportement ba nga xam ne sunu maam yi ak sunu waajur yi dañu ko doon amee ci direction oto ba heure boo nee chauffeur rek dëkk boo wàcc dañu lay bëgg loolu moom maa ngi koy ñaan ñu duggee ci màggal gi en attendant leer na am na solo mais bëggoon naa ñëw comme nee nga yow urbain nga gën a maîtriser fii ci dëkk bi bëggoon naa tamit ku wax wax inter urbain ndaxte lu ëpp ñooy dugg si bala nga wax urbain urbain inter urbain moo koy jiitu ndax ñoom ñooy jëli clients yi ci àll bi di leen indi fii ci biir dëkk bi lu mel ni oto yi jógee Ndakaaru soor Ndar Kolda Kédougou Diaobé foo xalaat rek partout dans Sénégal ñi ñoo ñoo fa ñëw di indi avant chauffeur bi départ lan moo war a doon jumtuwaayam lan moo war a doon li mu war a fàggu ba pare avant moo départ di daw kilomètres yu bari war a jëm si Touba indi client yi. waaw Modou chauffeur bi moom nee naa la wér mooy jiitu ci nit bu ñu waxee wér ba pare oto bi ci gare routière ngay déparé. gare du bi ngay déparé nga bàyyi xel ci sa col ko waaye boo bàyyee sa xel sa col ko ba pare nag nga vérifier lumière yi ndax baax na xool pneu yi ndax yëpp mu ngi ci en état benn gondalewut wala benn firiñ amul fin de fer bu muy génn loolu ñu ngi la koy ñaan mm-hmm. waaye bu ñu jógee ci loolu tamit ñu fexe ba yombalal doomu aadama yi paas bi nga xam ne moom la ñuy yéege ci oto yi ci bépp gare routière pour war a ñëw ci Sénégal yàlla suñ borom dogal na nag may nuyu suma responsable syndicat monsieur Alassane Ndoye transport routier du Sénégal waaye noonu laay nuyee nag suñu président national monsieur Dame di nuyu adjoint Baye Pape Diop bu baax a baax a baax a baax waaye nag may nuyu sama mag tudd ko léegi muy président bi nga xamante si ni moo nekk euh, région bu Diourbel muy Serigne Sall. maa ngi koy ku nekk xam na ne amoon na soññee vraiment ci màggalu Touba guñ def ci garage yi lu jëme ni ci wàcce ay kaamir ñaan pour yàlla def ci yoon yi jàmm ñu àndoon suñu DC Cheikh Omar Gueye dem siyaare ji Cheikh Mountakha Mbacké Al Bachir ñu benn yéene rek lañ am ak benn pas-pas mu boole waa transport gépp pour ñu dem siyaare ñaan jàmm wàcc ay kaamir ci garage yi kon loolu rek doon na ci loo xam ne rek bu ñu ko taxañee rek day daal di dugg nag ci màggal gi waaye daal sëfoor bu ne maa ngi lay ñaan lumière yi baax na pas-pas bi am nga xam ne ñi ngay yeb gënoo leen nga xam ne ñi ngay yeb duñu duñu duñ doomu yoo xam ne yow yaa leen gën yàlla moo la def sëfoor def leen client boo xam ne amul oto toog ci oto bi bu ñu demut doo dem parce que mënuloo am fooy jële gasoil muy benn pas-pas beneen bi ci topp nga xam ne ay doomu aadama nga yeb te doom aadama yi nga yeb benn idée rek lañ am ak benn pas-pas ak benn gëm-gëm mooy paas fu jóge fu sori pour ñëw rek sàkku si xéewal yi nga xam ne sëriñ tubaa cheikhul xadim borom da ko ko fayee kon ñuy may ñaan bépp sëfoo rek nga bokk ci ñuy sàkku xéewal yooyu ci comportement bu mën a doon may ñaan tamit takk der yi ñuy fekk ci kaw tali bi ñu yombal dem bi ak digg bi ñu oyofal ko tamit maa ngi koy ñaan gendarmerie nationale bi nga xam ne liy biti dëkk bi ak péage bi ak train bi nga xam ne nee nañ tey day ñëw suñu ministre tutelle di xalaatam di monsieur Mansour Faye xalaat ko nañu fexe rek ba yombal fa doomu aadama yi ñoom dem bi ak dikk bi mooy lu bokk contrôle routier yi maa ngi ñaan vraiment néew ma bu mu ñàkk waaye mu wàññeeku ralentisseurs yi ñu xool ci point yi nga xam ne moom la ñu koy teg parce que parfois nga teg ralentisseur ci descente mu doon loo xamante si ni day métti te day indi sabab lool ci sëfoor bi daal loolu moom Modou maa ngi koy ñaan incha allahu rabbi. jërëjëf Serigne Gab am na solo wax nga ko lu am solo surtout pneu yi ndax dañoo toll ci période nawet boo nga xam ne pneu bi nga xam ne daan urbain chauffeur bi cour cinquième deuxième troisième quatrième ñu ne la may ma wàcc. bala nga am cinquante pour cent ñu konkongal la nga wàcc bokkul ak nga kor sa cinquième def cinq. egsi cent di dox loo nga xamante lu mu gàtt-gàtt di nga daw deux heures de temps yoo xam ne moteur bi doo ko teggi accélérateur rek ci ngay nekk mhm. kon pneu yi lu mat a sóoraale la wax nga lu am solo foofu ak vérifier les lumières mhm. surtout war nañ ko bàyyi xel ndax lumière moo lay dimbali ci nit guddi est-ce que jàpp nga ne chauffeur bi jógee dakaar ñëw wàcce client war a delluwaat Dakar indiwaat client est-ce que war naa mën a demaat sa njort yow waaw Modou Euh, may may tuub bu baax a baax ndax xam naa moom lañu ñu waroon a tijjee émission bi ndax yow ñoo ko bokk rek ñoo moon lenn ndaw loo xam ne dañoo bokk nekk ci transport bi bu Touba mooy bu urbain bi. Mm-hmm. ñu doon mu nekk nag responsable foofu ci Kër Baay Laat ñu koy wax Lebu géey suñ boroom moom ko moom ku gaaw billaay mm-hmm. ci fan yee ñu génn alxames bi paase lañ ko doon ñaanal. feebar bi mm-hmm. yàggut yàlla yóbbu ko ñuy ñaan yàlla yërëm ko. taxaare ko àjjana yi firdawsi te ñun ñim bokkal a nekk ci transport urbain rek ñu jëlewaat ci foofu njàngat bu baax a baax a baax a baax mhm. ni àdduna amut solo te it kër la goo xam ni kër ak waajukaay la dañ ne la nga liggéey fi ba jàpp ni maanaam dootoo ñibbi yow mal xiyaam mhm. waaye nga liggéeyal fi tamit loo xam ne boo demee yowmal xiyaam yàlla dina la may kër ak dëggu may jaalewaat nag ñoo xam ne ndeysaan moodu démb suñu benn xale yàlla suñ borom dafa dogal mu ñu mu jot mu laalante ak ñoom muy ñi yoroon jakarta bi te wàccab liggéey muy ñaar ñi fële ci buntu daara ja xale bi yoroon oto bi di sama rak mën naan ne ma maa jëndoon oto bi jox ko pour mu ci dimbali yaayam ba natt bi dal ci kawam muy xaadim luum ma koy jaale di ja di masawu nag baaralum mi nga xam ne magama di ziare la nag baaralum sama xarit ñëpp xam ko vraiment président yoro jaxate groupe porteur mu daal may wax ne sëfoor bi lan moo war a doon wàccuwaayam ci mu jël ay client dugg Touba bëgg a génn bëgg a génnaat Moodu àdduna yàggut mhm. te màggal gu ne jaar na fi transporteur yi moom oto yi mhm. nañu dalal xeli chauffeur si d'abord parce que embauché wuñu leen ci papier sur blanc xëy na chauffeur bi day bañ a toog ngir bëgg a yor ak njabootam waaye chauffeur bi tamit bu mu digee loo xamante si nii da koy bir ni maanaam mënu ko wala ngay ñëw transporteur bi naa la déew fi teg 500000 yi wala moo fi teg 600000 yi nga bëgg di jaay ngóora wala gars yi lii ñu dem lebi jënd ko ay seexu sërif tas ko ci mbedd mi tax xiir la. Hmm. ci ngay def loo xamante si nii maanaam da ngay dem bu màggal gi jàllee nga koy rëcc wala doo ko nettali borom oto bi moom heure boo mënatut a dem dina seet kuy dem. Hmm. oto bi heure boo ci dafay jawaaba mu soge. su su moom boo moytuwul otoom lay njëkk a xalaat. bu ñu la ñaanalee ba pare day fexe xool na lay réparer oto bi pour mën a continuer waat ay activité am hmm. kon may wax ne nañu dalal xel yi lépp ci dalal xel yi la moodu ay def ñaari voyage fukki voyage loolu yëpp dalal xel la naa gaaw dem Dakar war naa ko daw 30 minutes yooyu yëpp ay caaxaan magu ko may wax ne nañu yaraat suñu bopp sëfoor du mbaam sëfoor du mbindaan sëfoor ci kër la xëyee di nit koo xamee day génn pour dem ni nga xam ne noonu la ko alkaati bi defee dem ci kaw tali bi liggéey liggéeyam wàcc bi di ko defee noonu bi di ko defee noonu sëfoor bi war naa koo mën a defet noonu ba nga xamante ni kenn du ko yëpp kenn du yëpp ay responsable am ñoom kat ñoo wote suñuy loi yóbbu ko ensemble ne dañoo bëgg ñu sàmmal ñu ko ñu di ñu ko sàmmal maa ngi ñaan bépp sëfoor daal nga jël référence ci sa papa ba nga bàyyi kër ga boo ko fekkee ci mbedd mi wala sa yaay ja nga bàyyi kër ga wala ci responsable yi nga xam ne bu ñu déggee lu ñaaw dañ ci am kersa lii moom maa ngi koy ñaan bépp sëfoor wala bépp driver ba jërëjëf Alaaji mais gab ba tey bu fekkee ne chauffeur bi dafa yebe Ndakaaru lu toll ni nombre ak péage wala yaa xam tali boo ko mën a jaar sa pneu toj est-ce que jàppoo ne war nañ laa mën a pousse di oto bi ak événement wu màggalu Tuubaa ni mel ni oto yi di rombantee ak nga xam ne chauffeur bu tojee pneu client yi nga xam ne dañuy taxaw ci gannaaw oto bi wala ci kanam oto bi ak oto yi ni ñu leen di rombee élire beeg ni ñuy wàcce tali bi wala ni ñuy yéege tali bi est que jàppoon ne war nañ laa mën a puus ba nga wàcc tali bi sóoraale sa morom yi nga xam ne la ñuy daw di ñëw keneen ki bu dawee mën nañoo rombante te kenn du jotee sa morom dara loolu ban jàngat nga waraat. Modou aman lan na uh, ab réunion yow mii sax waran nga caa dem mais contretemps moo am muy waa autoroute du Sénégal. Mhm. pour lépp loo xam ne ci Thiès. waaw dem boobu mi ngi amoon ci directeur bi di Thiam maa ngi koy nuyu mu amoon ci kanamu colonel bi nga xam ne moo nekk Thiès. Mhm. ma wax leen ne nañu jël ay matuwaay bu baax ci lu jëm ci autoroute Ila Touba bi muy gisee yi ñu fexe ba weccat wi di ci yomb ñu fexe tamit ba ñu yor carte seen ak dem di yomb parce que nit ki waroo koo jaay dara mu ñëw bëgg a dem di ca am ay tak-tak kooku wax naa ko ne ko nanguwuma ko beneen bi cop nee naa ko oto yi seen pneu yi toj di des ci kaw tali bi mbale mi wa bëgg naa ngeen def dëkk yi nga xam ne dañoo firi grillage ya fa newoon nag yi di jéggi ak mbaam yi na ko saytu ngeen takkaat ko ba waxoon nañ ma ne ma jël nañ ci seeni responsabilité waxoon naa ak ñoom ci citron yi nga xam ne ñu koy def ci séparation des routes yi ba nga xam ne guddi foo tege sa lumière di nga xam ne lii séparation des routes la waxoon na ak ñoom tamit ci lu jëm ci wàccukaayub Touba bii nga xam ne jeexut parce que péage bi dafa waroon a dem ba jeex yàlla dogal nag amal nañ ci nee nañ ay waxtaan ba juboo nañ ci ak kilifa yi nga xam ne ñoo féete Touba bitse bi la ñuy xaar pour dégager ko pour péage bi wàcc Touba wàcc Mbàkke kooku waxtaan nañ ñoom waaye daal fi ñuy wàcce mm-hmm. dafa sew na ko chauffeur yi bàyyi xel surtout chauffeur yi biis mooy sew na te wàccukaay bi neexut mën naa ne la boo fay wàcc defal point mort ba wàcc ki jëm Mbàkke contournement Mbàkke bi yomb na garde ceeru Mbàkke tijji na fu waay bàyyi jógee ci Sénégal maa ngi dégg nga koy xam naa di nga ci ñëw boo fu waay takkee mbaal daal mën nga faa tekkee sa mbaal beneen bi ci topp mooy heure boo defee droite ñëw nga ngaabu boo ñëwee ngaabu yaa ngi def gauche Touba ORN kenn baariwu ko soo bëggee dugg Mbàkke continuel soo bëggee ñëw ci garde bi taxal wàcce say client taxi yaa fa inter urbain yaa nga fa urbain yaa nga fa danañ yóbbu client yi taxi yaa nga fa loolu moom maa ngi koy ñaan waaye may wax ne daal bi gën a ëpp solo mooy li nga wax rek mooy soo paanee fexee la teel a teg train angle rouge su mm. fekkee am nga ñu la mën a jàppale nga pousse oto bi pousse ko mu droite bul xeeb li ngay droite ah, train angle rouge bi toujours nay féete gauche ci tëli mais waxuñu rek nga paan jël train angle rouge teg ko droite mm. amul njariñ da nga koy teg goos te mu am lu mu dee deedee 10 mètres mm-hmm. soree ko oto bi ba nga xam ne kii ñëw dina teel a xam ne fii oto moo fi am problème bu dee guddee bu defee faar dina ko xam may ñaan tamit sëfoor yi ñu daw ndànk boo dawee ndànk la sëñ Fall waxoon di nga dal ndànk tëll tëll ak rël rël amul njëriñ lii daal maa ngi koy ñaan bépp sëfoor jërëjëf alaaji Gab leer na man may faral di wax ne comme liggéey nga ay at yow sëfoor bi amoo lu la mën a dundal boo toogee am at dama ne nga liggéey ay at yow sëfoor bi boo toogee amoo lu la mën a dundal am at kon yaakaar naa semaine màggalu Tuuba waroo cee mën a liggéey lu la dundal am at kon te ak dal te xam ne bis bu ñëw dina jàll beneen bis day ñëw ndax ay màggal jaar na fi fi la la bàyyi am na ñu mu yóbbu am na ñu mu fekkut kon na ni ànd ak dal na ni dolli yar gi gën a saytu oto bi te xam ne bis bi bis rekk la mën a doon waaw boo jëlee la sëñ Abdou Lahad Mbacke mu baax ma doon wax yal na yàlla yokki leeram moom mi defar dëkk bi taal làmp yi noonu sa jépp nit ku dund ba ren di nga am loo dunde ba déwén mm-hmm. boo ko jëlee nga teg ko sa kanam rek doylu dafa bokk ci maanaam doomu aadama doylu mm-hmm. ak sàmm sa dignité ak sa jomb-jomb dafa am solo lool bu ma la waxee ne la tey fi ma dem ci li nga wax léegi mooy kenn mënatuta lim ci transport doo ma tudd mm-hmm. wala même boo ma tudd tamit dina am ñoo xam ne seen xel dina ca dem. parce que toujours rek li may wax ba barki démb mbubu ma jëlee samay kàddu ca Mbàkke dama ne sëfoor yi na leen autorités yi ak maire dëkk yi di fàttaliku. man de Modou maa ngi koy ñaan ni ma ko ñaane deese Gallo ba laa koy ñaane monsieur Abdou Lahad Ka mooy dafa jot ñu daggal ñu ay terrain ca buntu dëkk ba ñu am cité des sëfoor comme ni ko ñëpp amee. Hmm. yombalal ñu bu ñu feebaree mën a faju sunu njaboot yi bu ñu feebaree mën a faju loolu yëpp day bokk ci luy dalal xelam sëfoor may ñaanaat état du Sénégal mu fexe ba nga xamante si ni renouvellement parc automobile yi dina ko def te mu jëm si ci ñun Modou sëfoor bu yor sa yëf yi bopp mu leeral ni banque bi da la ko lebal ndax bu màggal jotee yow di nga tegale fukki luyaas ak juróom ak di fër fër sa xel mu dal ngay liggéey mais bu lépp transporteur demee lepp oto bi ci banque bi ñu teg ca beneen recette wala yeneen accord dolli accord ya banque bi génne woon mu ñëw jox la ko est-ce que transporteur boobu Modou mën na laa may jàmm yow sëfoor bi ko yor du la may waaye bu état defee renouvellement nga am sa yëfi bopp wala ñu am sunu cité yi bopp bu ñu feebaree mën a faju moo du sunum xel day dal ci lu bëree bëri ma lay wax ne leen li ñu dese moo bëri kon may wax soññaat état du Sénégal ci mu dimbali sëfoor si parce que nag euh, dañoo bokk ci réew mi màggal Tuubaa moom képp ku koy wax te boole woo ñu ci du yomb may ñaanaat ñi yore communauté organisation màggal Tuubaa li ñuy def ñu dañu ci boole ndax am nañ compétent bi am nañ xam bi mooy fu jataay di am ñu di fa toog man maa ngi fay dem di toog mais doyut damaa bëgg ku mel ni Modou Lo yi di ñëw di toog keneen di ñëw di toog parce que transport bi am nañ ci wàll plan circulation bii nga xam ne dañuy toog teg ko ci seen i xalaat tamit may wax ne nañ ñu ciy boole parce que ñun ñii dëkk Modou ci dëkk bi lu ñu waaye laaj ci dëkk bi yoon yoo xam ne bu ñu ko génnee ñu dem nañ ko xam dëkk bi ku nekk gis na li fi am mooy dafa amam ndox dugg bi yombut génn bi yombut fépp foo daan mën a jaar di tegg fi ne dafa am problème danañ ñëw foofu incha allah rabbi mais alaaj tamit ñuy wax ne lu njiit mooy transporteur yi ndax chauffeur si bu ñuy def ay voyage ay rotation yu bari for pour mu gaaw wala mu bari ñu mën am xaalis ci transporteur yi la ñoom ñoo leen ni sas lu nga xamante ni jikku jaaduwut nopp di ko dégg wala làmmiñ di ko laal ndax euh, su ma fàttalikoo du ma tudd turu kenn si plateau mais am na transporteur bu dëkk Thiès bu événement Magal Touba daan jël si jamonoy 508 danañ woo chauffeur si max yëpp ñëw jox leen neexal na leen toog leen kër ga daal di woo gone yi na la ñëw leen jël oto yi ndax gone yi moom bu màggal gi jaalee ay 500 ki 600 la ñu teg ci taabal yi est-ce que du kooku nga yaakaar ne ak i moromam ñi koy def ñoom ñoo influence yi chauffeur ba tax ñuy fërr fërr ci kaw télé bi di mën a def naka sudu noonu di dawalee nu mu leen neexee di rey nit ñi wala lan Modou xam nga jël luyaas yu bëri bëgg cee profité ñoom it am ci lu kenn musam Modou mm. chauffeur tawat dikkal ko. Hmm. balaa faju une semaine nga gis gaa yi génn ci mbedd mi di ko laajal. dëgg la dëgg la. sëfoor dawalaat am jafe-jafe am lente ak yoon balaa bis bee dellu si nga gis gaa yi génn ci mbedd mi di ko laajal pourquoi xam nga lu ko waral mooy nañ gën a organiser wu Moodu te gën a booloo gis nga tas gi ñuy tas nii hmm. amul njariñ intérêt yi ñi ñuy tas la waaye du suñu intérêt xam nga lu ñu ci jublu kenn ku ne ñu wut ab récépissé jox la wala ñu wut ab jox la. mooy di ñu boole ñuy xeex ñuy rañe di jël seeni intérêt tey jii dem nañ ba dañuy dugg suñu transport bi boo gisee mooy li ma lay wax ne la man fu ma toog koo mën a doon bokkuñu secteur nga bëgg dugg ci kaw Modou Lay wala nga bëgg a dugg sama digganteeg Modou Lay dinaa la yaaram nga ne amal la yemal première chose boobu bu ko càmbatee transporteur yi ñun chauffeurs yi ñu dem ba rangé wu booloo doon benn li may bañ nga di ko bañ keneen di ko bañ amul benn transporteur bu mën a am doole wala nga dawal say oto sans chauffeur il faut ñuy waxante dëgg il faut ñu booloo ba pare yéenante jàmm tey waxante lu rafet gis nga transporteur boobu nga xam ne wax nga ko sànq xam nañ ko xamu naa ko xam nga ko muy teg ay otoom naa la demal nopp lu ma jox gone yoote bi gone yi ñoom la rek ma ne la dawaluma wala diggéewuma aw sas soo ma ko joxee du ma def lu ma munut parce que ay nit laa yëpp tay bakkan la ñu yor ci temps laay daw ci heure laay daw te damay fexe nombre bu may fexe koo wàcce fa mu ci jàmm lii mooy njëriñal sëfoor di njëriñal transport lu am solo nga wax te am na solo euh, Alaaji gaa ana lan ngay wax chauffeur si nga xam ne dañuy jóge Dakar bu ñëwee gendarmerie bu nekk yoonu Thiawén wala héliport lañ leen di wàccee naan yoon bi daa xat d'accord yoon bi day xat mais nañ waxante te yàlla rek tax te jàpp ci te borom màggal tax client bi lim la jaral ba fay ko moom lim jaral màggal gi li ko Cheikh Amadou ba jaral ba fay ko yow chauffeur bi surtout nga dëkk fi wala nga daan fi yëngoo te miin yoon wi xam ni nga koy lijjantee ba jege jil client bi te yàlla rek tax ak boroom màggal gi waral nga koo mën a def te yàlla tax. ana lan ngay digal sëfër si nga xam ne leen ñuy wàcce aéroport wala avant ñu fay egg tuur leen naan yoon bi moo xat léegi taximaan bi ñëw moom maa ngi ñëw ci wàllam. profité daan yoon wi daa sori ak fi ñu la wàcc yoon wi daa xat lan ngay digal sëfër si nga xam ne war nañoo mën a lijjanti ba jege si garage Dakar bu njëkk ba. wa illaa ñu ñëw ba sama garage boobu sax ñu tax fee héliport fee ancien banque ba sax mu tane client bi ngay wàcce laajteem du métti wala pensam du métti. Modou ren moom il faut ñu ñeme fi ñu jëm. Hmm. comme dañuy def émission. mooy dëkk bi bari na ndox. maa ngi ciy ñëw bu baax. trop am nañ problème mu yoon. lool. yaa ko wax léegi taximaan bi yëpp client bi am na problème. Hmm. bu ko yebee kañ la koy wàcc. urbain bi yëpp oto bi am na problème bu ko yebee kañ la koy wàcc yoon yi dagg na ndox mi bari na fi nga daan jaar di dem ban la soo fa jaaree ma naa am ci fa ngay màggale ma waxan bépp chauffeur tamit buy def transport en commun muy biis muy auto transport fii laa koy ñaane gendarmerie mu lool maa ko ñaan ñaanuma ko nag ngir sonal kenn mais képp ku ciy jël ay client rek individuel Dakar na nga fexe fexe ba wax leen ni ci ñaari garde tiers yi laa jëm bu Mbàkke wala bu Touba Héliport fa laa mën a yem ki nga xam ne nag dafa jël location ñu am ay bagage ay cin ay laa kooku moom gendarmerie mun na ko bàyyi su mu amanee raam ba jege fa mu jëm ñoo ñu wàcc yi dafa ay activité mu dimbali leen ca loola. mais képp kuy def transport di yebe ci garage bu mu mën a doon ci Sénégal di fa déparé sab diggée na doon garde ceer bu Mbàkke wala mu doon feneen waaye nag yéen taximaan yi nga xam ne yow yaay seen kilifa ma lay ñaan tamit comme bu màggal amut. soo fayee 2000 wala 1500 da ngay dem fi nga jëm munuñ xam nañ ne danañ leen comprendre kenn mënut a bañ teg ca paas ba dara ndax ren ku ne xam na ne dafa jafe waaye nag nañu ko yombal du ma ne bu ñu yokk paas mhm. kenn ku nekk xam na ne oto bi dem di def transport interurbain sax di génn dëkk bi dana yokk ay paasam waaye nag ñu teg ca lu yem foo doon fayeeku 1500 fexeel ba teg fa 1000 francs taximaan bi tamit foo doon fayeeku 1500 fexeel ba teg fa 1000 francs lii moom maa ngi koy ñaan quoi très frère am na solo loolu moom maa ngi ci doon ñëw ah, ba tey Alaaji Gab danañ ñëw foofu di dugg si ci li nga wax noonu mooy dëkk bi dëkk bi moom amul mbedd moo jàpp ne oro surtout transport yi ñu ngi leen ko yëgal di ko lancé ñu bàyyi ko xel surtout sëkk yi ñu ko sëkk ku ko ji moytuwul di nga màggale ci àll bi ndax ban la day kole fekk oto bu ndaw bi sax li mu ci mën a su néew fekkul oto bu mag nañ koy moo moytu ko bàyyi xel di ñaanat bu baax autorité yi police gendarmerie yi nga xam ne ni mooy intersection yi nañu ciy dimbali lu mel ni sama garage boobu oto mën na faa jéggee dem ba Daaru Raxmaan jaar jéggi dem oto mën na faa jéggee jaar dem ba Touba Ndiarème dem ba jànnatu génnee route nationale dem caaween jëm ca kaw kon nan ñuy dimbali ci intersection yi parce que ki daan xam mbedd moomu mu ñëw nga baalal ko ko na ko da nga wiiri ci rond ak embouteillage boobu boo moytu ko sànq dañuy bàyyi xel intersection yi yu mag yi di ci dimbali chauffeur si du lañ fi dimbali mais client yi yóbbu te yàlla tax ñu ngi ko dellu du ñaanaat bu baax di bàyyiwaat xel li nga wax am na président wala secrétaire gare routière bu taxi bu ma invité woon xam naa daa tardé mën naa mi ngi si yoon bi mais bëggoon naa mu teew fii ñoo gën cee dolliwaat de mooy taximaan yooyu nga wax nga xam ne ñoom gan ñi seeni gan la te ganuk Sëñ Tuubaa gi jóge sama waxoon njilbeenu wax sori lam ko jaral ba mu fay ko ñëw yow taximaan bi nga xam ne yaa koy recevoir di ko dalal war ngaa xool sa diggante ak yàlla ak boroom dëkk bi yoon wi xat na métti na boo yebeb client bala nga koo wàccee boole ko sare doo xam foo jaar dana jafe lool dana dana waaye nag na nga dawal yërmande xam ne li nga bokk ak ñëpp la ku ne war na cee mën a sóob sa loxo amooy million wala junni yooyu joxe waaye li nga yor sa doole mën nga jotee sa kemtalaay kàttan jaayante ko Sëñ Tuubaa wàññil ko moom xam ne wàññil ko waaye bu mun na ñàkk yokk gi nga boole ñaar ñoo xam ne ñoo bokk fu ñu jëm te soo réewuñ ku ci nekk paas le maximum nga boole ko mu doon paas ba nga naroon a fayee ko kenn ka boo ko defee dana doon ndimbal te bul yàkkamti client bi yoral crédit it fu jëm nga wooteel ko te yàlla rek tax ak borom màggal gi. Mm-hmm. looy wax sa chauffeur taxi yi. waaw muy chauffeur taxi muy chauffeur urbain pàcc urbain bi ma yor caayan bëgg yu sew dama na leen ren da ngeen. yéen a dàq yokk fii. waaw d' accord day am dégg li ma la dama ne ci yoon wi li ma la wax dama ne dama ne ren man chaque année damay wax ak sama njaboot dama leen a wax ne. dee communiqué ak client yi. mooy xamal ko ni ko yoonu yombut. Hmm. te caaween sori na. te bëgg naa client yi ñuy ñibbi caaween lu mu guddi bu naajee ñu am oto. xataay yoon wi waral na nee naa leen communiquer leen ak ñoom. même bu dee hmm. paas ba ngeen ciy teg 100 francs ngeen leeral li tax ngeen ci teg 100 francs foo xam ne 200 francs nga ko doon fayu. Hmm. naam sax bu dara xew 200 yi ku ne xam na ne ba marché occas yow du bu gudd la waaye dama koo defan ngir dimbali askan wa. fa dëkk pour ñu mën a am ay demuwaay ndax defuwaay da leen a jafeen waaye na nga communiquer ak gan ñiy ñëw. pour leeral leen maanaam li nga xamante si nii mhm. moo xew mhm. mooy a ah, yoon wi kat neexut fi ñuy jaar bari na beneen bi ci topp tamit nga am yërmande ci client yi soo gisee nit xamul fu mu jëm wala fu muy wàcc nga dal am dal ak laaj ko a ah, foo jëm ndax yor nga numéro téléphone mhm. yooyu yëpp Serigne Touba nga koy defal wooteel ko ba mu xam fam jëm gindi ko ba nga xamante si ni bu wàccee dina xam fi mu jëm mais yëpp nit rek encaissé 300 wala am rek damay wàcc laajoo ko ne ko noo yow foo jëm wala nangam bàyyi ko mu wàcc mu wàcc nekkaat ci conséquence ndax fekk yaa ngi koy wàccee tey alom nga wala caaween fekk na moom ma nga jëm ba ndindi kooku moodu àq ju rëy la mm-hmm. te it lu métti la loolu conseillé naa ci samay gone mm-hmm. lu ñu man mm-hmm. ci dimbali clients yi ren nañ leen dimbali ndax clients yi ren kenn ku ne mënuñoo xam fu ñu jëm loolu moom mënuñu koo xam clients yi moom fi ñu jëm pour ñu xam ko dana jafe jërëjëf am na solo lu leer nga wax loolu bokk na ci li nga xam ne mooy liggéeyal Serigne Touba ci màggalam le chargé sa téléphone crédit ba mu bari moo tax ma wax na la oto yi yemale client yi héliport wala ca ginnaawam ku ci man surtout ma bi fi dëkk wala bi nga xam ni yàgg naa nekk ci dëkk bi te yoon wi ne jéem a jaayante Serigne Touba indi leen ban jege boo ko defee la ñu waroon na paas dana wàññeeku te it boole ci leen daa biire foo jëm fee la joxoñ leen ko sa kemt lay kattan ñu ngi koy soññ suñu bopp di ko soññ sunu gaarat ak gaarat yëpp ndax liggéey suñu Tuubaa la mbokki auditeurs auditrices yi nga xam ne ñooy teewlu jotaayu Saveur Tambacounda leen bëgg ànd ak ñun ci émission bi ki leen koy animé di seen doom seen xarit moo Modou Lay président regroupement Saveur Taxi nekk banque islamique en face tapis rouge Areba Irika da ngay jaar ci 88 628 19 05 88 628 19 05 88 628 81 08 88. 628 81 08 di nuyu foo ma jógee ahlu ceeneen ahlu njaañeen di nuyu Ibrahima Diagne Ndiaw alaaji jong ñoom Aliou Sène di nuyu soxna yi ñu bàyyi ca kër ga ak sunu yaaboo yeeg ñëpp ñu ngi leen di nuyu te di leen jaar ñu ñëw ci président regroupement yi garage yi ñi nga xam ne ñoo uuf njaboot gi war leen a ñaax cette leen di président wu garage yi ala nan nga leen di dolli wala lan lañ war a comporté woo pour man koo ñaaxaat seenu njaboot ndax ñu def attention moo xam ki urbain la moo kem ki nga xam ne mooy jëli client indi ko ci dëkk bi ana lan lañ war a mën a ñoom regrouper seenu njaboot defal leen ko. waa ñaax gi mooy toujours rek li ma la wax rek na nga bàyyi xel ki nga yeb na nga am yërmande ci moom. client bi jógit di dem bu jëm see Touba na yor am numéro téléphone bu mocc saagam wala walisam ba nga xam ne bu koocee nañ ci mën a woote yow mi nekk ci sama garage di urbain su client wàccee fàttee ab bagage ci oto bi bu ko xeep parce que mën nga koo xeeb nga lor ko mu yàq ak màggalam fekk moomu ko mu koy xalaat ba ak màggalam yàqu may ñaan képp kuñ ci wàcc oto client am bagage muy Mbàkke Touba ak lu mën a doon bul sànni ci ron coussin bi wala nga sànni ci ron banc bi ko ba yegg ci sa président regroupement président regroupement bi tamit na ko toppatoo ba mu dugg ca président de groupement yi tamit may wax ne nañu disponible te tijji seen i téléphone te ñu neex a jot sëfoor si nañ leen dimbali bu ñuy dagg seen booy rek dajale xaalis bi rek dem sunu kër tëdd di màggal loolu maa ngi koy lànk dama bëgg ñuy wàcc ci mbedd mi man ku nekk gis na ma ne damay wàcc ci terrain bi damay ñëw fekk ab angal mu xat ma taxaw fa responsable syndicat la parce que police ñi ngoog ay drone yu ñuy sànni ci kaw pour fu nit taxaw dañu lay gis ñoom commissaires yeeg commandant yi ci seen bureau may nuyu au passage le nouveau commissariat de Ndamatou muy commissaire Arona Ba ren mooy première màggalam bi mu defee passation de service yàggul. mais hmm. kenn ku nekk ci ñun gis na ko ci njàmbaaram ak facilité am ni maanaam mi ngi mel ni sax dafa maîtriser dëkk bi fukki at. muy nuyu commandant corps urbain ba fa ne di jaata lu ne lay def ndeysaan bu yoon wi daggee dina def lépp lépp lépp même dina woo sax ku ñoo xam ne ay bàyyi defal yàlla lañ pour ñu fexe ba yoon wi baax pour nit ñi dem parce que ndaamaatu dafa am impact may ñaan Serigne Abdul Karim Mbacke moom Serigne Fallou li ëpp ci doomu aadama yi dañuy dem dindi. ku ne xam na ni yoonu ndaamaatu dafa dagg may ñaanaat faati directeuru Asirut demoon na fa defar ko mais ndox mi toujours bu defaree bu jàllee du ko may ñaari fan wala ñett ma koy ñaanaat mu xoolaat fi dagg ci yoonu ndaamaatu mu defar ko parce que li ëpp ci doomu aadama yi dañoo jëm dindi may ñaanaat sëfoor si nga xam ne bu ñu tourné kër bàyyilaat muy taxi ba wala urbain ba jëm hôpital Ndaamaat intersection bi ñuy taxaw jëm kër sëñ Abibou sëñ Fallou maa ngi koy jaar bu baax borom Touba ca kanam ñoom ay jàmbaar lañ def nañ benn voie de dégagement bu garaaw fële ci Touba Njaareem ba keroog ngay dem Daaru Tamsir ku naa xam na ne dafa feesoon dell ak am ndox boo tooyee mënatuñ foon a jaar fi ñuy wax guy ñànka ak Touba Njaareem defar nañ ko defar voie de dégagement vraiment bu baax lamp yi nga xam ne maa ngi doon gis tamit tàkkut fexe nañ ba muy tàkk kon ma leen di ziaraat may ñaan rek police bu dee guy mbind yor foofu wala ndaamaato yor foofu ñu bàyyi foofu loolu daal maa ngi ciy ñaax ñëpp moodu may wax ne daal intersection yu mag yi nañ ñu ci dimbali loolu moom waxoon naa ko ci CRD yi CRD yi waxoon naa ko boo déggee man la ñoom bu ñuy def plan circulation nañ ñuy woo ñu toog mhm. bu ñuy sukkandiku rek ci benn alkaati bu ne damaa xam dëkk bi wala damaa miin dëkk bi gis nga dëkk bi moodu kenn gënuñu ko xam ñun kenn gënuñu ko miin fi la ñu juddoo fi la ñu yaroo fii la ñuy faatoo demunu fenn kon ñun dëkk bi ci lu koy defar ci la ñuy xëy bul toog rek nga tëju nga def sa xalaat ni maay police wala dama am xam-xam wala benn préfet wala benn sous préfet tëju woo woonu loolu moom d'accorduma ko nañ ñuy woo ci CLD yi tey tànn borom xam-xam yi ñu di leen indi ñun waa njaboot ak transport ñu toog mm-hmm, mm-hmm. su wax jotee ñu xeexal chauffeur mooy intersection yi nañ koy bàyyi muy jàll yu mag yi wax nga ko léegi intersection bu am sens ci sa garage boobu di ancien banque islamique ñu koy wax total daam si la soo fa jaaree jógeen tey Dakar bu la neexee doo laal suuf si ba keroog ngay génn ji ci raay bi ba keroog mën naa ne la ngay dem sax daggin dindi doo ko raay léegi intersection boobu yow police toujours damay gis mu di ko baare waa béret blanc yi nga xam ne miinuñu dëkk bi mhm, beneen bi ci topp nañu dimbali ci permis yi nga xam ne dañ koy faral di jël bu ko seemi jëlee wala motaar dab la jël sa permis doo xam mu koy déposé du ko benn poste police mhm. su jàllee ngay wër mais chauffeur yi tamit Modou nañu laaj ma sama mooy sama diplôme moto nga yor wala leneen da ngay taxaw attestation wala nga taxaw ci ku yor attestation jox ma ko wala nga ñu ànd ba ci poste police nga déposé ko mais doo jël sama attestation rek dem soo ma ko bëggee def damay lànk te boo ma bëggut a wax sax fooy teg permis boo ma laajee permis damay lànk ah ma la ko jox ah loolu maa ci ciy félicité sama safoor yi maa ngi leen di wax ne képp ku leen laaj permis na leen wax fan lay yóbbu sa permis mais màggal gi jeex ngay wutiwaat permis di fere plus de trente mille ak say paas du ma ko d'accord ren fere kay waaye tardement bi waaw loolu moom du ma ko d'accord ren parce que ñun tamit dañuy liggéey te suñu ndaw yi safar seen permis yi mooy seen diplôme yi jërëjëf Gab euh, wax nga sama mbokk yooyu wala sunu mbokk yooyu dàq yokk ak euh, ak ak teeg yi naan fii laa yem mooy mbàkki yooyu nga wax sunu mbokk yooyu ci coupé boobu ak yokk baas boobu daaw héliport maaja téeméer lañ ko doon yabe téeméer lañ ko doon yabe loolu rafetut jëkkut jaaduwut ku ne war na koo mën a jombale sa bopp mooy li doon wax sànq ne ku ko ñu mën a def rek taxut nga am dara da wala yërmande te xam ne gan ñi say gana ki dal sa kër ak ki dal kër jàmbur keneen keneen yenn ci bokk yam ndax suñ ci waa ngeen gëm moo leen boole te moom sant waxul ne murit bi na ñëw mbaa tiijaan mbaa laay dana ñëw leen santale leen ma yàlla kon ku nekk war na la kon jàpp naa ne yow gan gi ñëw rek bu dalu sa kër sax sa gana li nga ci man ko dimbalee ko boo ko berndeelu sa kërit li nga ko mën a dimbalee sa oto sa doole bernde la liggéey Sëñ Tuubaa la kon nañ ci góor góorlu di ci dolli surtout sama mbokki mbàkki Tuubaa yi nañu am yërmande di jàllale client yi fa nu jëm seen képp lay kàttan buñ ko defee rek yaakaar naa jàmm dina am en tant que responsable regroupement des chauffeurs bokk ci gare routière bi ñu doon tijji barki mu président Mamor jëm bu jiite ko xam naa dañuy fàttali sunu mbokk auditeur auditrice rek ñu ñëw 88 628 19 05 mbokki auditeur auditrice yi bëgg ànd ak ñun ci émission jotaayu chauffeur da ngay jaar si 88 628 19 cinq wala nga jaar si 88 628 81 08 88 628 81 08 en tant que responsable bu bokk ci gaaru routière boobu ñu doon tijji barki démb ñu neen dañoo bëgg oto yi daan taxaw si trottoir yi biir Mbàkke ak roq-roqaan yi yëpp bokk dem garage dafa yabe ji ngeen bëgg loo xam ne difficile na jafe na est-ce que loolu mën naa nekk nan ngeen ko war a mën a saafara en tant que responsable bu bokk ci. Modou dama yàgg di leen wax yéen jeunesse Touba ak Mbàkke ne leen sunu mag ñi li ñu tàmbalan dañ na mooy du ñu tegale ñuy mbëkkante di xeex ñoo lànk tey àdduna bépp nañ xam ne boo foo dem ñun président regroupement yi dañoo lëkkaloo sunuy téléphone du coupente réeroowuñu loo nekk dama ciy nekk lu keneen nekk dama ciy nekk transport département bu Mbacké maa ngi nuyu DC Galoba bu baax te di ko ziar ci gëm-gëm gi mu am ak pas-pas ku nekk xam na ne ak di félicité waat suma président département bu Mbacké muy président Mamour Diop jëmba xule gëm-gëm bi mu am ba deman élection jël garage bi ak engagement yi mu amoon ak digge yi mu diggoon ni dina ubbi gare routière bi te suñ borom yàlla dogal na def na ko moog le DG Gallo Ba le maire de Mbacké loolu maa ngi leen ciy félicité. mais départemental bi mu incarné jox doxeegu ko de. dama ne. Euh, des na waaw baal ma tuuti dinañ ñëw ci loolu da am loo ma laaj da ngay bàyyi ma leeral après nga wax ma yow lu tax mi ngi incarné loo xam ne doxeegu ko après ma tontu la ci dama ne. damay félicité le maire Gallo Ba tey félicité waat askanu Mbacké ne. ñi ngi doog a am maire am na maire yu fi jaar nag dañ leen di féliciter ci liñ liggéey dem non baal ma non baal ma Gallo Ba wax naa la ci ci samay discours ne man ndaw laa Touba laa nekk ak Mbàkke kuy def lu baax danaa ko wax kenn moom ma ginaaru kenn nenu ma galo ba musuma may junni oo ma numéro téléphone damaa gis muy liggéey Mbàkke gii ñu dëkk ñoom nee naa la ay seede lañ ci li may wax ak ñeneen ñi yor seeni bët di xool félicité waat président département bu transport routier bi mooy gardiceer moom tijji na Moodu mm. depuis bu jot na arrêté bi musta am lu musta am ci axlu transport Mbàkke mooy arrêté di mécanicien di baas ñëpp dañuy jóg dem ci gardiceer ba loolu musta am Mbàkke ren ku ren ku nekk xam na ne sax xool juuti am na fi te mosu fee am kenn mosut a gis Mbàkke di dugal dara dama la wax ne la Galaba bu yaakaaran mairie bu Mbàkke ci ay recette du fi liggéey dara man gëm naa ne li muy jël di ko def ci Mbàkke ci dooley boppam la garde-tier bi li mu ci financé pour mu tijji ci lu jëm ci ndox ci lu jëm ci ay làmp loolu rek waa Mbàkke war nañ ñoom la ko defalan ah. parce que bu tijjee ko commerce yokk su commerce yokkoo transport yokk bu transport yokkoo njëriñ feeñ gan bisimilah est-ce que dégg nga baax a baax dégg naa kon li mu def noonu hmm. boppam la ko defal mais askanu Mbàkke la ko defal. garage bi moom tijji na Moodu ndax mi ngi dox loolu waxuñu ko boo fa demee oto yaa ngay dugg di génn normal démb boo fa demee ña ngay tekki ci biir garage ba di sippi taxi yaa ngi yëpp commerçant yaa ngi ci biir dox garage baa ngi dox wel wel ma lay wax ne la. ña yoroon garage bi du ñu ñoom maamoor mi ko yor du ñu te du ñu gàpp mi topp ci wetam loolu moom nga bàyyi ko xel. garage moom Moodu képp ku te daw wuti fa place di nga fa soxla transport yëpp nañ gëm ni tijjiwaat na li may ñaanaat suma mbokk yi waa Tata yi rek te di leen ko ñaan mooy nañu teel a dem ñu wut parking ci biir garage bi parce que démb clients yi dañ doon génn di dem di leen fekk fa ñu nekk te ñoom dañoo bokk ci arrêté bi mm. maire bi dafa dugal arrêté bi da leen cee dugal pour ñu dugg ci biir garage dane bépp véhicule boo xam ne da nga doon taxaw ci biir mbedd muy seree ba di jakarta ba bàyyiwu la dalaa wax ne la nga dem ci biir gare routière même mécanicien bi teg otom dama ne sareet yi am nañ parc dugguñ ci biir garage bi ña nga ca ginnaaw sareet yi ci transport bi lañ bokk diggante Touba ak Mbacke Modou kenn mënu fee def transport te boole woo lañ kër yu bari boo fa demee ci nii fay tàkk sareet yi wala oto yi ñuy wooye ay rim ñoo ko yor kon may wax ne man dama leen a boole ci njaboot gi ba keroog suñ borom di indi lu ko gën waaye yal na wàcc ci ñoom mais dama ne yow en tant que nga chargé wu morodas bokk si gaaru bi ak chauffeur si ak nu ñu dëgëree bopp est-ce que yaakaar nga ne saawar soosu ngeen di wax jot ngeen arrêté lu ngeen musul am mu am tey est-ce que loolu tax na moo mën a saafara ba safar si duñu dugg ci ruq yi di yab di dem yóbbu client yi. xam nga Modou man nañ ko ba pare xam nga xam nga Modou man dama laa wax ne la buur dafa am. Mm-hmm. loi am. Mm-hmm. bu kenn jaawalee loi ak mbedd mi. Mm-hmm. mooy morodaas boobu ma sarse woo du xeex du xuloo du dóorante yet du daw dopp oto jàmbur du mbëkk oto jàmbur. maire moo def arrêté jaarale ko ci préfet bu dëkk bi préfet bu dëkk bi yëkkati arrêté bi teg ci loxool président bi nga xam ne moo gagné garde tier bi jébbal ko police jébbal ko gendarmerie soo jëfee ndigal li ñu la sant noppal nga sa bopp te noppal say ñooñ soo ko jëfewut yar bi dal la lii la dama ne la li ñu doon wax def laa ne la dama la bu ñuy moroode moom nañu yem Touba waaye li ma la mën a xamal mooy rond-point bi képp képp ku ko ci jéggi dugg ci samay zone ne da ngay moroode ci kàtt nag yàlla bu ma jàppee xam nga fu mu commencé 24000 ba 44000 su ma la jàppaatee 60 mille te trésor nga koy faye te police su Mbàkke dina garde sa oto ñetti fan doog la bàyyi nga dem loolu lii ñu tekkee dooy caaxaan bàyyiwuñu mécanicien bàyyiwuñu kenn dama ne garde-tier baa ngeen tijji na yaatu na ku fa bëgg place demal kuy laaj espace boo ñëwee ñu jox la ko garas baa ngay dox léegi dama ne sa président li mu incarné départemental loolu da ko incarné nii mais du lu mu jëfeegum en tant que yow responsable bu tel ne yow chargé wu Morodage dëkk Touba ak Mbacké te doomi Mbàkke nekk fi war a mën a yor pàcc boobu doxal ko loolu pourquoi la te lu tax sa président Mamor tijji lu toll ne gaara su Mbàkke doon président départemental ne départemental bu ñu ko waxee fii ba Taïf wala boog euh, Sadio yooyu yi su mel noonu ci département bi dañ bokk ay misra yooyu normalement mënul jël ñëpp tuur téléphone oo leen mais nag nga bind ay lettres distribué ko les présidents regroupement yi bu dee ñun ci taxi olof yi naan mbaam gàtt na mais ci jur gi la bokk pourquoi pas loolu jëfewoo ko. neel xëy na euh, dara la suñ gan gi wala. bisimilah tontu question ba pare. waa amul problème ma ne euh, waxal ne yow xëy na Modou dañ la doon yët sab lettre ëgsiwut ci man ci yow su tagee jàppal ne ci man la tagge hmm. bu dee commune Touba di Touba Ilipor lettre président bi jot nañ ko. du lu ñuy miim du lu ñuy laam-laamee bu dee Sadio ak Taïf gi ngay wax képp ku mën a doon jox nañ la lettre bu dee urbain bu Touba président bi nga xam ne moo ne moo yor fédération urbain bu Touba jot na lettre am bépp ndaw boo dégg ñu ne la dafa am tur ci transport jox nañ ko ko bu dee secteur tata Abdou Diop mi président mi ngi may dégg jox naa ko ko. leer na amul ku jotut lettre am beneen bi ci topp mooy li ngay wax mooy ñun ndey ji seex lañ tëddee. procès bii ñu yor rek muy procès verbal avance 850 000 deux mois ngay daw doo joxe benn dërëm. bi ñu ñëwee dañoo waxuñu Touba waxuñu Mbacke ñëpp lañ woo tijji transport parce que Touba ak Mbacke benn la Mamor Diarra moo tëdd Mbacke sëriñ Touba moo tëdd Touba kon kenn mënu leen a xaajale ñun ñi nga xam ne nag ay donga lañ yoo xam ne tekkiwuñ dara ñooy jéem a diaboliser di teggale may wax ne président Mamour Diop jëmb xule boole gi mu boole mu sam beneen bi ci topp li ngay wax ne man yàlla dogal na damaa dëkk Touba pàcc bi ñu ma jox lu tax mënta na am kuñ ko jox dama la wax ne la xam nga lu ma ñor man mm. du woon ndombal tànk moo tax ma xeex pour trans pour département bi changé xam nga lu tax ma xeex pour mu changé pour képp kuy jeunesse di dund ci transport nga gisaat sa bopp ci transport lépp lu ñuy def ci transport ñu boole la ci te objectif ba ma amoon ba tey maa ngi continué di ko gis ci Mamor te heure bu ma ko gisatu topp ko du ma damay dëpp dama la man sëñ Touba rek laa yaakaar moom laa gëm moo may may li may dunde gëwuma keneen. jërëjëf merci beaucoup Gab leer na Adama Kane bokk émission ñu daal la nga toog bu la neexee li ñu defee si waxtu bëreetut. Euh, en tant que responsable euh, chargé de communication à la fédération Pape Ndong en même temps secrétaire général banque islamique arrêt regroupement chauffeur tax banque islamique arrêt ba Edika ñoo ngi lay dalal xam naa day gaaw ndax li ñu dese ci waxtu bu bëriwul ñu dugg seeg yow ci ay laaj tontu. di ziar ñëpp. maanaam mhm. ñëpp. maa ngi jiital di nuyu bi sama ñaari waay di ci ñaanal suma. Mhm. suma mhm. yaay. suñu borom xaaree ko àjjana di jégal ko bakkar yi njëkk gi mujj ñaanal sama waajur bu góor moo la bàyyi moom moom laa fi dese. suñu borom yàggal ko sama kanam. yàgg fi loolu ànd ak wér ci barke Sëriñ Tuubaa. di nuyu ak ziar xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou di ko ñaanal mu yàgg fi te wér. li mu li mu bëgg a liggéeyal Sëriñ Tuubaa mu defe ko ni mu ko bëggee ñu ànd ko taalibe yëpp di di siyaare sama sëriñ mooy sukk yaakaar tey ak ëllëg di sëriñ Fallou Sidi Abdou Lahad di ñaanal way juróom sëriñ Sidi Mbacke moom Cheikh Abdoulaye Lahad suñu borom yàggal ko fi te wër mu yàgg loolu di siyaare soxna Kounta Mbacke bindu Cheikh Abdou Khadre sama xarit suma lépp di siyaare sëñ Moustapha Cheikh ak doomam sëriñ maam Cheikh Fall di siyaare ñëpp waaye di siyaare ahlu transport bàyyi ma kenn di siyaare départ ci président regroupement régional Serigne Sall wàcc ci président départemental sëñ Mamor di di di ko jaaree ci ziar bi am bi ah, gàpp muy fi toog représenté ko fi ñu ngi koy ziar bu baax di ko jox wàcc waayam di wax ni waxtaan wi am na solo lool dégg nañ ko ñu ngi koy teewlu soo ba tey waaye tardement bi nag maa ngi koy jégalu lu baax li ko waral mooy xanaa intervention bu ma doon def police ak gendarmerie rek xawoon faa yàgg ci sama benn mbokkum taalibe boo xam ne sawar la ñu téewoon ko fa ma demoon doon ko taxaw loolu moo waral yàggaay gi koy jégalu bu baax di ko tuub demoon nañ ba sax kii waaye man moom dama nekk doomu aadama boo xam lépp lu mu waxal nit dama koy bëgg a rempli ba mat sëkk looloo tax ñu ñëw waaye xatoon na ci ñun lool wax dëgg yàlla ñu ngi tub bu baax di jégalu bu baax di nuyu nag euh, sama président fédération di PAMDONG kii di wax nag Adama Kane la chargé la communication fédération taxi bi PAMDONG jiite nekk secrétaire général groupement des chauffeurs de taxi ancien banque islamique bi nga xam ni Modou Lay moo ko jiite loolu xanaa doy na présentation jërëjëf Adama leer na am sol dañuy def direct rek ci question yi parce que euh, li duuf ci nag yu xajut ci biir ci te temps li des tuuti la Adama en tant que responsable ci taximan te ku wax taxi di séntu gan goo xam ne moo jëm si ci màggalu Sëñ Tuubaa gi nga xam ne dañ koy répété waat mooy màggal goo xam ne fu waay nekk rek ci àddina bàyyi nga ko xel ne ñëpp ñoo fa bokk jëm surtout dëkk bi nga xam ne xat na xat goo xam ne nii ndax mbedd yi amul foo mën a jaar ci oto yi ak teggi ak sareet yeeg yu demee noonu ana ban comportement la taximaan bi war a gàddu yor ko comporté woo ko am yërmande ci client bi nga xam ne moom la war a yem da doon gàddu suñu tuwaa ci moom waaw question bi am na solo lool li ñu ciy njëkkee rek mooy xanaa jiital sa dënn ak sa sa xol xam ni lu njëkk taalibe bi suñ tubaa nga te ñun taw suñ Tuubaa dañoo taw fexe ñu dëkkal ko ci dëkkam bii bu sell bii mm-hmm. Mm-hmm. te ñun amuñu lu may moom mm-hmm. moom lañ yaakaar tey yaakaar ko suba kon bu la suñ suñu borom taw fexelee nga bokk ci ak njabootam mu suñu borom cëralee ko cër bi mu ko cëralee yaakaar naa bis bi nga xam ne ci la am lépp suñu borom taw fexelaat la nga nga nga suñu borom taw fexelaat la nga nga dëkkal ko ci dëkkam bi waaye suñu borom taw fexelaat nga war a yóbbu ganam ñi war a yóbbu ganam ñi kon loolu tawféex la joo xam ni la la war dëgg mooy àndi ceeg taalibe ak yar ak i teggin waaye la ca la ca jiitu mooy yaata sa dënn xam ni yow ambassadeur nga ambassadeur nga ci ñi lay fekk ci ci ci ci compor ci ci yu bari ci domaine bi ci jiitu nag mooy yar bi ak teggin yi man à li may wax rek dama koy wax ni ñun ay dongalan ay taalibe lañ kon yar bi moo gën a moo war a gën a li nga xam ne moom lañ war a gën a privilégié ñu xam ni kat suñ tubaa dañoo dañoo defal loo xam ne dañoo jomm nit nag bu la defalee loo xam ne dara jomm da nga koy téen téen woo xam ni nit ku ko ku ko gis day xam ne téye nga ko taxi nag day secteur boo xam ni secteur bu dafa organisé wul mais bu doon dafa organisé dafa dafa organisé comme ñun ñu jàppee ni ñun foofa nekk noonu lañu ko organisé di ko doxal danañ mën a sensibiliser ñëpp waxtaan ak ñëpp ndax man sama garage bi ma jógee démb la noonu def ak safar safar gi nag danoo xëy wàcce kaamil mm-hmm. gàttandoo ko gan ñi sëñ Tuubaa yi waaye ñaan ñaan suñu borom gan ñi ñëw ci jàmm ak salaam delluwaat ci jàmm mm-hmm. ñu suñu borom euh, defal nu taw feex joo xam ne dañuy gàttandu màggal gi ak taw feex joo xam ne ju taw feexe lay doon mm-hmm. loolu loolu lañ loolu lañ ko gàttandoo mais nag li ma wax rek comme du ñëpp organisé mënoo mënoo du ñëpp nga mën a sensibiliser mais ñi ñun ñi nga xam ne dañoo bokk suñu njaboot moom ku ci ne waaxu nañ suñu tànk parce que démb rek maa ngi doon réunion boo xam ne maag Pape Seck ak euh, ñi nga xam ne ñoo seqoon taxi demoon nañ fa tuwaa waa Touba ca kanam woowoon ñu ñu demoon ca pour gën a waxtaan nu ñuy def ba ba ba ba lépp jaar ci aw yoon mais ñun démb rek ci waxtaan waxtaan nañ waxtaan wu yaatu ak suñuy sëfoor sensibiliser leen waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne moom la ñu war a doxee ak gani sëñ Touba yi mm. ci xam ni kat Euh, màggal du bis boo xam ne dañu ciy war a fitoo pour profitoo pour am ay milliards. mais bis la boo xam ne dañ ciy war a fitoo profitoo pour liggéeyal yàlla liggéeyal Sëñ Tuubaa. Mm. bis la boo xam ne loolu lañ ci war a kon la ma wax démb rek naa leen du boo xam ne dañ cee war a ami milliards. wala dañ cee war a jaaree tekki ba faw mm. non bis la boo xam ni dañ ciy liggéeyal Sëñ Tuubaa liggéeyal Sëñ Tuubaa nag du da nga ci da nga ci war a am xanaa des na ci gañ nag waaye du de comme dañ ciy war a am lu ni gàññ noonu non warul demee noonu. li mu war a demee noonu li mu war a demee mooy yaatal gan ñi jox leen yitte di leen di leen teete di leen di leen di leen di leen orienté fi ñu jëm nga xam ne loolu lu ko gën a kawee ci liggéeyal Sëñ Tuubaa amul la ma waxoon démb nag laay répété waat démb damaa wax dama wax sama chauffeur si nga xam ne ñoo nekk suñu regroupement ni leen client bi ngay fayeku vingt-cinq mille francs mu wàcc mu mu jugee Dakar fay ko nga ñëw mu ñëw Touba gi nga koy fayeku vingt-cinq mille francs te yow nga doon doon ambassadeur war a war a wane li ne Touba yërmande ji nga xam ni sëriñ bi yërmande kese la nga woon ko wane ñu feeñ sa jëmm ñu gis ko ci si jëmm yow ngay fay ko client vingt cinq boo ko fayee boo ko fayee ko woon quarante mille fay ko ndax suñ ko hmm. yow mi koy fayee ko lan la la suñ Touba jaral lan la suñ Touba jaral très bien yokk nag ñàkk ndax dëkk bi doy na waar xat na euh, jaarukaay jaarukaay jafe na ndax man mii rek bu ma ñëw fii pour ma am accès fii lu jafe la hmm. oto bi ma indi dama koo mujj wàcc ñu ko wàcceel dem ma jël jakarta ñëw kon yaakaar naa jafe na waaye nag du tax mu warul mën a tax ñu ñu ñu ñu dagg bopp ginaar yi déedéet. déedéet warul loolu warul mën a tax xat na rek mu warul doon motif bi nga xam ne moo war a tax ñu doxee nu ñu neexee. ñu ñu neexee ak neexoon nag transport organisé nga xam ne boobaa ñëpp ngay waxal ñëpp nga mën a sensibiliser loolu nag li ma ci dama ciy profité di lancer appel le maire de la commune de Touba le maire de la commune de Touba mu jàppale ñu ci. nu ñu organiser taxi ndax taxi insécurité bi bari na te man acteur u la ci laa bokk waaye du teem wax li nga xam ni. attends loolu Adama ma yaakaar ne yéen yéen a war organiser seen bopp en tant que les fédérations du yi fu nekk nan la war a mën a organiser ba sensibiliser taximaan yi bu aajowoo sax taximaan di chargé téléphone am crédit ba mu fees pour mën a éduquer client bi fu mu toll. nan ngeen ci war a mën a taxawee yéen en tant que les fédérations. xam nga fédération moom li man mooy sensibiliser ak waxtaan waaye ki nga xam ni li ma wax rek secteur bi du ñëpp ñoo doon sa njaboot du ñëpp ñoo organisé wu dafa am ñoo xam ne dafa pëccëxoo parce que secteur u taxi dafa am ñoo xam ne dañuy taxi te bokkuñu ci. Hmm. am na ñoo xam ne ay coxeur lañ dañuy teg lampe bu bu màggal ñëwee dañuy teg lampe taxi. ku euh, borom parking bi bu màggal jotee day teg lampe taxi bari na surtout bari na ak bari mécanicien bi day teg lampe taxi mhm. kon loolu noonu pour nga boo sensibiliser ñi nga xam ne ñoom nga yaakaar ne ñoo bokk sécurité terrestre boo paree ñee moom dañuy def lu la neex te doo ci mën dara kon boo boo gisee mooy demander la maire le maire de la commune de Touba mu mhm. organiser ñu mhm. loolu moo tax mu koy demander ndax organisation bi moom mooy responsabilité bi moom rek la war moom rek moo ko man du ñun ñun nag am nañ yéene bi ndax ku ci la nga nekk yaa yaa defar kenn doo xaar ku la ko defaral am nañ yéene bi ndax li ma wax sànq mooy bu dee man garage ba ma nekk garage ba ma nekk nga xam ni dama dama fekk ma fay ne dañ ciy liggéeyal suñ Tuubaa ba kor nu fay jógee keneen di ko jox te yaakaar naa li may wax am nga ci expérience xam nga ci dara képp ko ñun bu événement ñëwee bu muy tabaski muy korité muy màggal muy leneen dañuy wàcc terrain bi ñun ñooy xëy ñun ñi nga xam ne ñooy yor bureau bi wa commencé ci sama président maa koy maa ngi koy saluer di ko nuyu di ko xamal liggéey bi fi mu fi mu ko teg foofu la rek mm. ñun ñooy wàcc ci terrain bi ànd ak waa bureau yëpp bu saa suñu déggee te boobu dañ koy boole nag ñi si yor oto dañuy gaare seen oto ñi si yor liggéey dañuy dañuy bàyyi seen liggéey ñëw waaye suñ tubaa jaral na leen ko mm. suñ tubaa jaral jaral na leen ko am solo képp koo xam ne yokk nga paas noo ko warul yokkee mm. président bi lay ñëw taxaw ni la eh lii moo jaadu lii moo jaadu lii moo jaaduwul soo forcé nag après ñun lañ la xam ne moom la ñuy doxal yow xam nañ ko. yow xam am na solo Adama lu rafet la question bi am na solo macha allah di jàllale benn yóbbante bu sunu papa Mansour Ndiir woon jamono yii si ginnaaw ne yéen a ngi dëkk Touba nga bokk ci acteur transport wala ku ci tudd tudd la yow Modou Lay maa la yóbbante nga gën a ñaaxaat sa gone yi wala say mbokk boo toogee ci plateau bi ñu ànd ak dal di def ndànk. di yërëmante te xam ne nit mënu cee liggéey loo xam ne mën na laa yoroom at kon kàddu kooku sëfërte ko moom ñu bàyyee te xel vérifié waat pneu yi ak lumière yi boo sonnee nopp wala jox sa morom mais gab da am tuuti luñ laal ci national yi parce que classe gii ñooy jaxase ay national nationale yéen bàyyi leen di jaxase transport bii lee national benn la ba Idika moo ko doon récépissé bi moo ko yor maanaam jeex a gut ñaanal leen ko bu mandaam jeexee ko bëgg ñëw taxaw ne ma bëgg naa ñuy dem élection yéen ñu fal ko huit douze gaaras la ñu ngi xëcc huit yi fal ko fu ngeen tollu ngeen organiser seen benn réunion wala assemblée général dem seen kaw lax fal ku leen neex naan eh, c'est président national fu ngeen jëlee président national ka bàyyi leen président national amoo leen ko bàyyi leen jaxase transport bii ngeen fi nekkee te jéem a boole gone yéen amoo leen président national président national benn la Touba la dëkk Mbàkke lay duyoo loo tontu foofu. dama lay ree ba pare. noo may ree. xam nga lu tax. waaw bisimilah. mooy xam-xamu transport da ngeen koo desee xam dégg naa léegi sama mbokk ma lay Adama Kane maa ngi koy nuyu au bu baax. Hmm. te di la siyaar nga am loo wax ne bàyyilaat ka nañu organiser le transport bi bàyyilaat ka organiser le transport bi de. ñun waa trans non waa transport bi ñoo organiser wut xam nga lu tax. Hmm. mooy dañoo laat ka xam nga lan la man fal nit ni ko yow laa jiital ci commission transport. nga war a bennale effectivement baal ma rek nga war a bennale. Mhm. yemale mhm. boot ñëpp ndeyoo ñëpp bàyyoo ñëpp. dooni kii laa reconnaître reconnaître ma ke jéem a reconnaître seret mbaam bi reconnaître borom jakarta bi comme ni Mbàkke def loolu noonu mooy njiit ba pare nga rancé te bàyyi ñi lay tegale ak nit ñi parce que seen intérêt tax mais boo ñëwee bëgg yow ñu fal la ci commission transport suñ la maire xamalee ne la damaa am ab réunion comme seen réunion bi jàll nga xam ne yàlla dogal na lépp ci mën lañ ko produire ba mu jeex ci seen problème bi nga xam ne dama ko amoon ak ñoom kooku laat ka defu ci dara laat ka falul kenn la demal xeexi falul kenn la demal xeexi laat ka tasloowul kenn gaaraasu jàmbur gis nga bu ñu amee suñ problème politique nañ ko régler ñun ci politiquement su ñu amee suñu beneen problème nañ ko régler mais bu ñu indi problème mu transport ci problème mu laat ka jotewul ak laat wu ba pare bàyyi mag ñi ñuy tegale bu intérêt wàccee ñu jël ko féetale ko benn côté wala benn banque wàcc ñu féetale ko benn côté gis nga problème bi am Touba yépp ak pëccëxoo bi ci transport mooy di ñàkk dëggu mooy mu fal ay nit moom yàpp ne dañuy dox ci dëgg jiital leen ñooñu noonu doxuñu ci benn dëgg seen njëriñal bopp la ñuy dox lii moo waral wax ñun ñooy rancé wu yéeneen te jàmm kenn ku ne nga nangul ko la mu yor yow xanaa baal rek laat ka mi ngi mi ñuy wax laat ka xanaa yow caaween gële ay doomu aadama ñoo fa dëkk day nit ñoom ñu waroon a xalaat bu yàgg yóbbu fa yoto ñu lànk mosuñu faa dugaloon ma xalaat ko teg ko problème yi may ma ñoom yëpp mooy pour yoon wi lañ mënta déchiré ak askanu caayin yi jóge caayin am lu leen di yóbbu ñoom ma am ak ñoom problème problème bi ma am ñoom ñoo ma tooñ ñoo tëj sama bunti gone ma dem di arrangé ñu dóor ma kuur moo du ma damm loolu maire ban responsabilité ci la am ci responsabilité xanaa kay responsabilité bi nga ko ci jox mooy dama bëgg nga dem ci waa ji mu jéggal ma waaye ngay naan toogaat ci kanamu maire tasal garage diw moo def lii moo indi coow li dama ne ñaar moodu bu ñuy xeex am na ku yor ab yar di dóoree kii dóore nga koy wax ne ko bàyyil sa dóore bii yow bu dee da ngay tooñ ñu ne la baal sa tooñ gii man duma tooñ ku nekk xam na ma xam-xam laa yor ci transport di dox ñu lànk bañ ma ko nungul parce que dañoo bëggu dëgg man ci dëgg lay dox mooy duma ma lekk ba kenn ak transport du ma naan bàyyi kenn ak transport duma dumalu kenn ak transport ma di leen di wax nag ne ñoom it sut naa leen ñu xam ko ñu bàyyi ko xel waa transport jëpp ñëpp nag laa yéen a jàmm doole jii ma yor nag moom ma ko sëñ Tuubaa ma ko jox man joxuma ko ngir ma di ko xeexe joxuma ko ngir may fayonte mooy yàlla dogal na ku ma tooñ wala nga mu wax ma lu ñaaw te xamoo ma dama lay jéggal léeg-léeg nit di wax ci man du ma xam waaye bu nu àndee ma jëf di nga xamante si nii kii góor yàlla la mhm. beneen bi topp dama la wax ne du ma la jënd benn chauffeur wala transport bu may kenn mhm. waaye damay wax ne bàyyi laatkat li mu man def na ko mooy organiser na fexe bu procès jógee mu fexe ba Touba am ci wàllam ñi mu jiital nag laa ne nañu rikkilewaat ñu xam ne seen procès bi indi na coow boo gisee nag yow ma la ko wax gis naa la ngay takk seen bat si la nga yow lan ban secteur nga yore ci weer banaa yaa maa ngi lay wax ne la Mm-hmm. nañ dajalawaat mm-hmm. nañ boolowaat mm-hmm. nañ yeewwaat xale yi yor oto yi nañu xam ne ñoom ay chauffeur la ñuy ñu embauché ñuy xëy di liggéey su wàcc jotee nañu ñibbi président national baal ma bala ngaa tëj dama la ciy tontu. mooy dama la wax ne la Modou. président national ay nit a koy fal. ñoo booleen suñuy récépissé def suñuy signature fal nit. yàlla dogal na 5 ans wala 7 ans yi ngeen fi def liggéeyu leen fi dara. yàlla dogal na dama la wax ne la xool àdduna dama lay wax yàlla na yàlla fëgg sa bopp. mais ñun amuñu jot ak dañoo soxla ku ñu ci lañ def ay prévision 14 régions yi 11 régions yi falan def ay signature jox ko secrétaire syndicat monsieur Alassane Ndoye mu jébbal ko askanu transport ñu toog waxtaane ko ñu fal monsieur Dame Lo 11 régions 11 départements yi ñoo ko fal fal gu reer ak 14 régions yi. Touba ji bopp déglu ma wax la rek déglu rek ñett ji bopp déglu ma ñett ji émission bi daa jeex xanaa di ngeen ma may ma tëj. xanaa tàggatoo tàggatoo jeex na yaa ngi may dégg ñett ñi falan ñett ci des ah. mooy Touba njaareem séeju ñooñu ñoo yàqkati transport yi beneen bi ci topp nag may nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp di wax ne rek ay déwéni déwén wasalaam Touba promotion màggal ngeen ci ànd ak Baol Média FM 88 point FM fas yéene ànd ak yéen seen ay promotion yu mucc ayib ngir màggaluk Serigne Touba Xaadimu Rasul Baol Média fas a seen ab yëngu-yëngu yow may déglu yaa xam ngay commerçant wala tailleur wala leneen lu wuute ak li ñu lim nga bëgg a fësal li nga yëngu mën nga ànd ak Baol Média FM ci seen promotion yu mucc ayib yi yow may déglu mën nga toog fi nga toog amal sa publicité ci rajo Baol Média FM yaa xam a woote direct ci rajo bi mën a publicité sa bërëb bi nekk ak li nga xamante ni ci nga yëngu leen lu wute ak loolu itam mën nga sponsoriser ay émission ci programme rajo Baol Média FM promotion màggal di ay prix yu mucc ayib ay pri yu neex lool yoo xamante ni njàppandal la ngir askanu Bawol mën a jariñu waaye itam mën a jàpp ci màggaluk Serigne Touba Xaadim Rasul ba tax Baol Média FM andil leen ay promotion yu mucc ayib yow may déglu nga yor association wala daayira a kuréel gu mu mën di doon nga fas yéene amal safar sa koñ wala nag Média FM yamul ci 88 point bi rek waaye itam dafay ànd ak yéen ci ay plateforme lu ci mel ni Facebook BFM international ak YouTube Baol Média l'officiel Baol Média fas yéene cee partage bépp publicité boo xamante ni rek ante na ceeg askanu Touba ak Mbàkke ak li ko wër mbokk yi promotion màggal di promotion bu mucc ayib yéen yi nga xamante ni yittewoo ngeen ko ngeen bëgg ci ay leeral mën ngeen a woote ci 77 177 43 70 77 177 43 70 promotion màggal ak rajo Baol Média FM fas yéene ànd ak askanu Touba ak li ko wër ngir jàppale leen ci seen ay yëngu-yëngu ba ñu mën koo fësal ngir ñëpp mën cee jariñu Bawol Média FM 88.5 nekk fii ci Mbàkke Bawol tablo caab yi moo leen di ñaanal màggaluk jàmm. Bawol Média FM la radio de la jeunesse et des Bawol Média FM kaddu ndaw ak jigéen ñi. média consommation locale ca dëgg-dëgg rajo bawal la di moomeelu waa bawal bawal média rajo biñ doon xaar bawal média rajo bi dàq naqar di dugal bànneex seen émission jotaayu mag ñi seen émission jotaayu mag ñi ngeen ci ànd ak Serigne Mahamadan Sakho ci rajo Baol Média FM 88.5 ngeen koy am àllarba bu nekk bu 18h jotee jàpp 19h30 ci rajo Baol Média FM àllarba bi Serigne Mahamadan Sakho fas yéene ci ànd ak association waajal 18 safar ci njiitul Serigne Mor Kane ak Serigne Habib Mbaye seen émission jotaayu mag ñi ngeen mën ko teewlu ci 88.5 wala sunu application sunu FM wala Sénégal rajo mën nga ko suivre itam ci sunu ay plateforme Facebook BFM International YouTube Baol Média l'officiel officiel seen émission jotaayu mag ñi ngeen koy am àllarba bu nekk bu 18 jotee jàpp ngeen ci ànd ak Serigne Mahamadan Sakho ci rajo Baol Média FM a àddu ci émission bi mën nga jaar ci 88 628 19 seen émission jotaayu mag ñi ngeen ci ànd ak Serigne Mahamadan Sakho ci rajo Baol Média FM nekk fii ci Mbàkke Bawol tableau caabi xàll ba jëm Touba. rajo di lu ñëpp bokk ñu war koo yaatal ba ku nekk mën cee gis boppam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم